asalaamaaleykum mbokku département de Mbacké Mbacké kenn du ko wax te doo wax Touba Touba dëkku Xaadimu Rasuul Touba nga xam li ko yàlla defal ëppul kenn Touba nga xam ni lim nam bu ñu yàlla joxe réew kontul kenn ndox mu neex assainissement nga inondation yi loolu dama bind leen ko bind leen ko ndox fur ko mënee jëlee ji muy kër Momar Sarr wala feneen ak fu mu doon daan ko traité ba mu neex ba mën jariñ askan wi ba mën a jariñ Touba ñu jël canalisation yi waat indi ci Sénégal mu doon ay doléance dafa war a doon yi nga xam ni danga koy xool jël solution technique yi nga xam ni moo war jël personnel bi war bu ko defee ñu mën ko régler dans les meilleurs délais assainissement la même chose ndaxte inondation ñu koy am ci dëkk bu tedd bi ñu koy wax ay décennies et des décennies encore loolu dafa war a dakk bu ñu yàlla joxe ndam daanu mobiliser tout le gouvernement jox leen un délai précis et très court pour que ce problème soit réglé et que cette page soit définitivement terminée. bëgg naa la philosophie liggéey jaamu yàlla que philosophie soit la philosophie bi nga xam ni moom la ñuy am en bandoulière bu ko defee ñu baawaan ko fépp ci biir Sénégal pour que le Sénégal bon à vivre et beau à voir dina bëgg am na je serai le premier Sénégalais bi nga xam ni mooy njëkk yeewu pour dugg ci liggéey bi je serai le premier sénégalais bi nga xam mooy mujj tëdd ñu dugg ci liggéey bi damay wax ni un dirigeant da nga war yanu coono bi pour sa noflaayu askan mais un dirigeant waroo nekk ci noflaay bàyyi askan bi ci coono bu yàlla mayee ñu jël Sénégal vous saurez que nous serons de véritables serviteurs au service du peuple sénégalais et de l'unité